asiru ma al abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru asiiru ma al abraari xiina asiiru wa zanna al ida anni hunaaka asiiru masiiri ma al axyaari lillahi binnabi wa maa lii li xayrillaahi awdu masiiru yasiiru biyal jasbul lazi qaadani ilaa karimin alayhima arumu yasiiru sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi tax nu tal ko ñu ngi fii ci julli géej gi ku baax ñu ànd ak jàmbaar talibé Serigne Saliou moom soxna Fat Jaxate mi bokk ak Cheikh Abdoulaye ak Cheikh Soy bu Mariama Jaxate daaw nu defoon ko tubarkàlla masàllaa ren nu fekk war ko yàlla na ko téye at yu bari ci dara ji Sëñ waaye ñu ànd ak jàmbaar ku baax ñu ànd ku yiw waaye borom social ak développement muy femme boo xam ne femme battante la waaye ku bari valeur koo xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa képp moom moo ko ñor waaye nag mu ànd ak ñan njabootu keppaar soxna Aida national international ne ci lan laa jëm liggéeyal sëñ Tuubaa lu sëñ tubaa woote maa nga ca Boubacar Baye Laay wootee mu nga ca Boubacar si Seydi Hadji Malick mu nga ca Boubacar Cheikh al Islam wootee mu nga ca waaye ju liggéey ji kenn mënu ko ci daaw mu def ci liggéey bu rëy waaye ren ñu teel koo woo ne ko waañ wa nga sampoon moom lañ bëgg nga sampaat mu togg jox ñi nga xam ne mooy gendarme yi jox ñi nga xam ne mooy gémi yi mooy policiers yi mooy sapeurs corps yëpp ñëw nañu ñu ne ko soxna yi dama Serigne Saliou ñooñu yaa leen di jox añ mu ne dama yem foofu nag dinaa dugg ci biir baas bu mag bi képp koo xam ne da ñëw di ganu sëñ man maa lay bernde maa lay nga añ maa lay nga ndékki maa lay nga naan du sedd maa lay jox café nga naan maa lay jox ataaya nga naan soxna yi dama Serigne ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam suñu borom wéral ko yàlla sàmm ko te aar ko ci dara ji sëñ Touba képpar gi nag ñëpp ñëw nañ kenn manqué wul bu jógee rek ñëpp jóg nañu jàmbaari Serigne Saliou Fat Diakhaté les fatigables laa ko tuddee. gis nañu ci wàllu liggéey bi gis rek ni ñu daan woo rek liggéey bi kenn fu ci nekk am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko yor waa communication ñu ngi ci seen liggéey ku mel ni sista Babel ak ñi mu àndal màggat ak ñi mu àndal ñu ngi ci communication bi waa collation ñi nga xam ne ñu ngi yor ci wàllu sedd ñoom ñu nga ñor wàllu café geeg ataay gi ñoom ñu nga ca ñun ñi nga xam ne nag ñoo jiite waañ wi ku mel ni Assou Gueye ku mel ni Fat Ndiaye ah, ku mel ni Burena Gueye ah, ñoom ñoom ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk takku nga ñu dem ca waañ wa ñoor dama daaba ñu nga ca dama daaba ñu yor ceebu jën bi ñu ngi ci ceebu jën bi ñu yor dëxin bi ñu ngi ci dëxin bi mbaxul yàpp ñi ci nekk ñu nga ca ñi nekk ñi nekk jaga ba ñu nga ca waaye tubaarkàlla ñi nga ñoo yor ceebu ginaar bi ñoom it ñu nga ca kenn ku ci nekk nag fanu la teg yaa ngi koy liggéey liggéey bu sell waaye rik nga xam ne moom mooy chef de protocole soxna Aida jiite it sécurité bi moom it ma nga ca liggéeyam ñu yor wàllu ñu wàllu hygiène ñoom tamit ñu nga ca di ko liggéey liggéey bu sell bi ñu ko war a liggéeyee soxna Aida daal dafa organiser Babacar ci sécurité bi la bokk ànd ànd ànd ànd ak rik waaye ku mel ni taxawal nii di sunu jigéen di sunu xarit di di di géwalu keppaar gi di xaritu soxna Ayda di lépp soxna Ayda muy ajatu jooja faal mu baax mi moom tamit tubaarkàlla moo ngi nii taxaw moom tamit yor bokk ci wàllu communication bi bokk ci wàllu tamit bu ñu waree xumbal mu xumbal ko ba mu neex moom tamit tubaarkàlla moo ngi fi sunu yaay tamit ñu ngi ci biir baas bi toog bu yàq jotee ñu naan leen di rek ñu daal di yàq ñu dënale ba neex moo ngi noonu. waaw asalaamaaleykum. maa ngi tudd Jooja Fall tey nag danoo ñëw ci julli géej gi julli géej gi boo ko gisee ku ko waral borom Touba tubaarkàlla doomi soxna jaara ji waaye nag soxna Aida Saliou dafa ñëw di liggéeyal Serigne Touba te liggéeyam Serigne Touba yemul tey chaque jour mi ngi ci social mi ngi ci mi ngi ci def lu baax Serigne Saliou defar ko kalla macha allah muy def lu baax. dëkk ci social dëkk ci def lu baax dëkk ci kër Serigne Touba kër maam El Hadj Malick kër maam Limamou Laye ngeen organisé. Euh, ni ma jaxee bi nag tubaarkàlla soxna Aida moo ko waral ndax nag laajul état laajul kenn dooley boppam la demee ak jàmbaaram macha allah démb fii la fanaan ci baas bi réerul démb tubaarkàlla heure bi ndugg yi pare na organisation moom boo ko gisee tubaarkàlla kay joxe tell naa génne. ndax moo teel a génne ndax tubaarkàlla bu ñëwoon teg mbana yi te ndugg yi ñëwul tamit mënul a gaaw waaye démb heure bi fekk na ndugg yi nag yi daanu na ginaar yi daanu na tubaar kalla lépp pare na macha allah. si wàllu organisation gis nañu euh, tubaar kalla ci set lay dox ndax moom buy njëkk a dugg ordre sévère lay njëkk a jënd madaar lay njëkk a jënd ay gants lay njëkk a jënd ndax tubaar kalla biir moom lu ciy dem dafa war set. lu mu indi fii tey muy wàllu termos glacière kaasu ndekki bees la carton yaa ngi ne daanaka événement bu ñëw bu paase maye na yooyu daj na leneen ndax set la njëkk a jiital ndax set moom la yàlla bëgg moom la yonent bi bëgg. su ngeen doon xayma ci ñaata la toll. bari na kenn mënu ko wax te lépp ci dooleem la moom ku ñëw sax di ministre dikk ni ko dama bëgg nga man lu mu lay njëkk a wax àndoog man de waa keppaar gi ngay àndal. ndax dama bëgg man kuy doole dooleel jigéen ñi ma àndal ku dooleel jigéen ñi ma àndal dooleel nga ma. lan ngay wax soxna yi nga xamante ne ñoo dama leen wax ni leen nan continuer ndax sëriñ Touba amul tànk ginnaaw lu ko waay lebal tey jii bu subaa da ngay am lu ko boo wéree dee ñëw fi boo demee da ngay wér ñoo ngi ci kawam dun dellu benn ginaaw fii ñi fi ñëw danoon añ ndax waa kër Serigne Touba nga fi waa kër maam Alaaji Maalik nga fi waa kër maam Bou Kounta Ndiassane nga fi waa kër maam Baay Laay nga fi ndax ki fi indi ñëpp la boole macha allah kontaan na ma rek. لرب التفات إلى لهم تائبا له من الذنب والآفات وهو غفور هزيل ما